ndax eh, diine yi islaam du diine yi ngeen jégal ma ci kàddu gi du diine yi eh, wala kaana xam nga ndax lañ koy waxee lu diine yi doye di wala wane ni amuñu dara wala mënuñu dara waaye diine yi yàlla dafa wax ci alxuraan ni eh, xéwal yi mu def ci àdduna da koo def daf koo defal nit ñi rawatina jullit yi ñu koo di fàggu waaye bu ñu ko fàggoo ba pare nañ ko fësal ci lu àndul ak ngistal fësal gi nag mooy nga sol ci lu baax lekk ci lu baax euh, tabax ci lu baax te tabax nag li ci jiitu mooy këru yàlla néegu yàlla muy jàkk yi kon suñu demee tey ba ñu am ay kuréel ci kuréelu jullit ñi di def lu mucc ay ci néegu yàlla war mu war a doon suñu fierté ñun ñëpp fii ci biir Sénégal waaye fépp ci àdduna dañuy dellu sant yàlla félicité leen ko Mbacke Kadior TV di intérêt askan wi soxlaal leen yitteel leen ba pare di leen jaamu chaque jour rawatina actualité yi xew ci Touba Mbacke mu leen koy wan en direct da duñ ci dagg dara xibaar yu wér te wóor rawatina fépp ci réew mi actualité ak bépp xew-xewun man di am moo tax nu naa 300000 abonnés mën a réew mépp la yitteel mbokk yi am na site YouTube nanu abonné partagé aimé nu abonneel ko aimé partagé teg ci ndax yitte askan wi képp la Mbacke Kadior TV yemul foofu day photo day vidéo Snapchat